ak fayda nga di lijjanti jaam ñi <laughs> te kenn du ko lijjanti yàlla boo feeñ du dëgg na def yaa ngi si jàmm njor ay sant ay sant <laughs> indi ñàkk kersa kat woyu di jaay bandi kooba kororoj koccoral yi <laughs> yabaate ba de nan bàyyi jàmbur rek ay dara <laughs> ko ci daal guddal fan. nan bàyyi jàmm rek. ni nga mel ni soo ko bàyyi léegi réew mi nekk ci en voie de développement. <laughs> ko ci daal nan ko bàyyi. olof nee ko amul kilifa dina doon sa kilifa. yee yee ko amul leen kilifa rek. Kocc dina doon seen kilifa. ndax Cheikh fi may gis nii. dama xam ni Cheikh Sarr bu jógoon bëggoon dama dama jéggi waa réew mi. danañ toog wax bon. yaa ngi dégg. Mm-hmm. wax la moo am daan dundee ba guerre ba méttee waaye Kocc moom day toog di duma. nga ko ñëkk di ko jéggaluwaat. Eh, Kocc <laughs> Kocc tuddoo Kocc. di ko jéggalu publiquement. Kocc tuddul jo Kocc. Kocc daal seex man daal maa ngi koy ñaanal jàmm. Lat Joor Saxaar Fatma la tudd Lat ñu pire ngi noonu koo koy Lat Joor. ko ñaanal jàmm ñun ñëpp suñu kudd jàmm la rajo. Eh? di di Kocc ñu ngi koy ñaanal jàmm la eh, dégg naa ku mu nuyu rek nga préparé. ku ko ñaanal jàmm <laughs> bu jékkee jékkee affiche yi ne Alioune ñoon maa ngi nuyu. man yàlla def na ko du ma nuyoo. di fekk sama kol rek yow. loolu yëpp kon seex ku baax la seex koo dafa bëgg lu baax seex. yii yii yii yëpp bëgg lu baax ko waral. très bëgg. koo daal seex. Ah. yi muy defee bëgg lu baax la. lay dëgg la yàlla sa jàmm yàgg. yow didi yow didi yàgg dégg naa ñu ne xaritu kocc nga yow. <laughs> didi. <laughs> waaye ko ci daal ko ci daal ko ci barba daal comme Yaya Jammeh. man nañ ko ñaanal jàmm daal. Yaya Jammeh bi mu nekkee Gambie. Ah. boo dee ñëw ci ga benn Gambie ni ko waaw Yaya Jammeh la yaa mbokk ah man de suwaay man ay woo ma de. <laughs> ko. ndax c'est cote. cote maa ko bëgg. nan ko ñaanal jàmm rek yàlla na ko jàmm ah Didi. am maa ko bëgg naam jàmm rek. ma yow Didi mi xaritu Kocc la. xaritam non non ah, ngay xaritam. non ok Alima wax rek na jàmmam yàgg. na jàmmam yàgg. <laughs> ala coach je te supporte mooy déggal li yow nga ni. ma jàmmam yàgg. di di wax su la wax nga ni. ma jàmmam yàgg. ah ñaanal ko muy dégg. ma ni ko na jàmmam yàgg la loolu koy ñaanal jàmmam yàgg. yàgg rek gudd fan ah. lu mu bëgg <laughs> lu mu bëgg ci am na yàlla na ko defal. ah maa la wax yaa ko ñaanal lii. très bien yéen. lépp lépp kilifa daal jinne doon sa kilifa rek. ngeen di woyu woyu rek di jaay kooba ka dëgër làmmiñ ka dëgër dëgër bët ah di ak ñiiral allo. salaam coach na nga def. waaw. <laughs> wallaahi ah, ah, waaw waaw waaw ah, hmm. waaw waaw ah ah. yàlla baax na. saay saay du mel ni yow. benn. kan la waaw waaw léegi xoolal léegi bàyyil quatorze heures pile. Ah. Euh, di mën naa la jot ci numéro bi <laughs> waaw. SMS ma SMS ma sa numéro. comme ça su ma wàccee woo la <laughs> dégg nga <laughs> oh na ngeen def. ok. nga ne yéen a ngi koy ñaanal gudd fan taw feex ndam ma manaare ah kon baax na <laughs> et eh, Didi hmm. Didi xaaral ma dem euh, commercial bu ma dikkee ñu waxtaan ci euh, programme bi nga xam ne moom ngay waajal. Euh, ndax gis naa ni vraiment gis naa ci ambition boo xam ni. ku jara ku jara fésal nga. Mhm. waaw ku jara siiwal nga ne xorom. Hmm. waaw yow yow yow faaw nu siiwal la ndax yaa ngi liggéey liggéey bu am solo elle est elle est courageuse <laughs> donc ñu ngi ñëw léegi ñu ngi nuyu nañ la nag waaw d'accord maa ngi leen di fay ah nuyu nañ la ci nuyu yu gën yàkkawee maa ngi leen di fay di feddali suñu kóllëre rek yow <laughs> <laughs> di la ñaanal jàmm ci réew mi léegi amiin amiin amiin ñu dem commercial ki dégg